ak juróom fukk ak ñeent ñoo xam ne jaaro nañ ci ndox mi dem ba ca tugal daat nañ leen di indiwaat ci loo xam ne ñaari fan rek lay mat yéen kaay gii di Vox Populi wax ci lu soxal wàllum ubbite école gi ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yi bëri na ci ñoo xamante ni am nañ ci xol bu metti ndax ñetti weer yi nga xam ne seeni doom jàng wuñu ko ci école privée yi ñu bëgg leen ko fayloo loolee moo leen merloo yéen kaay gi nee na sax fas yéene nañ see jokkoo ak yoon nga xam ne moom lañ dénk wàllum njàng mu digg doomu mi moom na xalaatam ci mbir mi ci gétangaas gi am diggante école privée yi ak waajuru ndongo yi mooy ñu toog waxtaan yéen kaay gii de la témoin nee na école privée yi bu ñu waxantee dëgg raquette addu kalpe dëgg la def ñi nga xam na ñooy waajuru xale yi te nag bëri na ay waajuru xale yoo xam ne fay nañu waaye nag fay googee gënalu leen dañoo dem ba amuñu benn solution état bu Sénégal da leen seetaan yéen kaay gii di li quotidien moom mu xëy di ñu xamal lan ñu ubbitee école gi bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni làmbool na ko tribune yéen kaay dikkaat ci lu jëm ci yeesalaat accord de paix yi dox diggante Sénégal ak Union européenne yéen kaay gi nee na loole nag scandale bu ëpp la musiba ma bu kumba la baaxul ci réew mi lii nag la muy firnde rek nag mën nañoo wax sax ne Sénégal dafa jaay géej gi ñi nga xam ne ñooy waa Union européenne yéenekaay gi nee na nappkat yi nekk ci déndu Sénégal ngir ñu gis jën ci biir géej gi lu jafe la Macky Sall ci boppam moo autorisé waa Union européenne ngir nag ñu nappalu lu toll ci cinquante mille tonnes juróomi at yoo xam ne ñoo ngi saax-saaxee suñu géej gi Le Quotidien yéenekaay noonee la ko xëy waxee Dakar Times nee na li nga xam ne moo jëm ci accord de pêche yi dox diggante Sénégal ak Union européenne bëri na ci loo xamante ni nañu koy waxee demeewul noonu bëri na la na ci ay manipulation yéenekaay yi jàngee fa ne njiitul parti réew mi di Idrissa Seck ak dem gi mu dem fekk njiitu réew mi bëri na ci ñoo xamante ni bett na leen waaye nag mbir mi la mi niru mooy Idrissa Seck bëgg naa tuumaal waa Touba ndax keroog bi ñu ko tabee conseil économique social environnemental gis nañu mu dem Touba te na mu doon waxee ak xalifa bi xalifa bi daal di na koy wax na ko yow ku fonk ay conseil nga maanaam ku fonk ndigal nga ndigal luñ la jox yaa ngi koy jëfee ak na la muy firndeel dafay niru sax la nga xam ne moo amoon diggante Abdoulaye Wade ak mi nga leen woon ñu bari la ñu jàpp mooy Idrissa Seck Touba moo rataxal digganteem ak Macky Sall yéen a kaay gii di Vox Populi L'As Le Quotidien enquête daal di wax ci njiitu di président Macky Sall mi nga xam ne ma ngi woon ci sommet de Paris bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum jàmm njiitu réew mi daat nay wax ne lu soxal wàllum terrorisme l'islam moom la ñu njëkk tooñ ci wàll wi ndax fekk ay nit ñu nekk ci ay jàkk ak juma ak église di jàmm yàlla nga rey leen ba pare bëgg tuddee sa bopp ne l'islam ngay xeexal loole du l'islam du du lenn yéen gi di réew mi quotidien ak le ñoom la ñu gis mooy njiitu réew mi di Macky daan nay jubbanti Emmanuel Macron ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ndax Macky daat na koy wax ne il faut nga nangul ñu ne am nañu ay différence te nag kenn ku nekk ak valeur am naam mën nañoo ànd ci yenn yi enquête yéen a kaay nee na Macky Sall tamit wax na ca Paris la France ne conseil de sécurité bi amul benn membre bu Afrique bu ci bokk te loolee injustice la yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak 24 heures lii quotidien wax ci ni nga xam ne moom lañ yoree wàllu mbënd mee xaalis ak milliards yi nga xam ne moom lañ si dugal ñenn ñi jàpp ne ay léexóori ki njaaxuma ki tojaange am na si loolee taxoona ñu sant yenn ci ay député ngir nag ñu daal di koy lëmbat député yooyee li ñu gis mooy lu ëpp ci xaalis bi ñu jagleel wàllu mbënd mi ci Dakar la ko def yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu koy jàngee fane présidence confédération africaine de football maître Augustin Senghor candidat la stade yéen kaay dikk na ci football bi nga xam ne moo am ci sunu gaynde yi bëri na ci ñoo xam ne ŋàññi nañ gaynde yi di footballé naam nag ñoo ngi am victoire entraîneur bu Guinée Bissau gi nga xam ne Sénégal war naa daje ak ñoom